un incident yi nga xamné ne na ci audition bi eh, ñu doon defal ngañ Demba Touré le 23 février passé ñenn ci greffier yi nak eh, nekkoon ci couloir bu eh, doyen des juges wala sorti ci couloir bu euh, juge d'instruction Bobé a dit Seck ñu ne nag tenir ay propos outrageants à l'encontre du magistrat en particulier pour juge pour deuxième cabinet Nous nga xam ne dañu wax grâce à des vidéos de surveillance ak ay témoins ñu daal poursuivre pour outrage à magistrat à voie de fait entre autres ak ay actes de vandalisme Nous nag la ñu gis ne tàmbali nañu nous euh, teg loxo tey ki nga xam ne teg nañ ko ci loxo mooy léegi nii le moom nga xam ne moom mooy

ñëw doon def euh, genre caravane nag lu nu mel ñu gis ni sax euh, xawoon na fa yëkkati ay kàddu waaye tam liñ doon wax ne euh, dafa moon mandat d'arrêt boo xam ne dañu ko tegoon ci ndoddam ginnaaw itam bi nga xamee ne ministre de la ci sax bi ñu ko laajee ci loolee am na ay tontu yu mu ci waxoon ba mu ci jógee itam ñu ci bari jàppoon ne daal moom ngañ mile

Euh, sous mandat de euh, dépôt au Taï, syndicat bien nga xam un moment, un de la justice de justice si, incident yoye, nga à semaine dernière à Guinan audition pour greffier Bobé, di maître euh, Ngagne Demba Touré tes juge pour deuxième cabinet à d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Dakar à di koy syndicat bi en en impliqué ou en aucun degré si événement yoye, mi ngi préciser tam dit invité un confrère nous lever équivoque bi nga xamné nak euh, dal dinaay dinay am si euh, poursuite ñuy wax ci nit yi nga xamné ne dañoo nekk origine li amoon foofu itam moom bile euh, syndicat ah, daal dina ci euh, am ay cadeau yo xam itam daal na koy wax attitude ye ñu ne yena ci greffier yi dañu ko jël ginaaw bu ñuy def audition bu Ngagne Demba Touré parquet daal di nag euh, lancé ay euh, poursuite bu mu lancer poursuite nak ginaaw li xewal fofu ni ma lañ ko waxé ci deuxième cabinet de juge d'instruction poursuite contre certaines personnes ñu identifier liñ leen di topé moy outrage à magistrat et voie de fait audition bi mi ngi amone le 23 février février bi ñu génn ginaaw bu ñu ko euh, tegee loxo euh, ci retour d'exil boobee ñu ne nag ab mandat d'arrêt la ñu lancé woon te du Seck moom moo ko euh, defoon ñu gis ne nag ba ñu ko àndee sax ñi mu bokkal muy ay greffier dañoo taxaw temb dal di koy jàppale loolu sax moo taxoon première audition bi amul woon ndax euh, boobee fekk na greffier yi nekkoon ci euh, grève ba ñu ca nopp itam ka fa nekkoon daal dafa ne du toog ñuy inculpé euh, ku mu bokkal liggéey arrestation bu ngañ Demba Touré tax greffier yi nag daal di ànd ak mber jour audition boobee ci buntu juge d'instruction boobee ñu gis greffier dañ doon opposé wu à l'audition de leur confrère di def ay protestation tam ci arrestation bi nga xam ne coordonnateur euh, la plupart des membres des structures regroupées à syndicat des travailleurs de la euh, justice amicale des greffiers du Sénégal rassemblé au Tibuntu, à euh, bureau bu Mamadou Seck tax mu audition houleuse placé sous mandat de dépôt La taille nous kenn ci avocat yi mi ngi doon wax ne daal euh, dafa dox ci diggante euh, kii di juge euh, instruction bi ak kii di ngañ Demba Touré situation bi itam gisoon nañu union des magistrats du Sénégal dañoo condamné woon mbir moom nga xam dañ ko jàppee une impardonnable forfaiture dénoncé itam préfet yi nga xam ne dañoo rassemblé wu di prononcer ay incertainité à l'endroit des magistrats de façon générale ainsi que ay propos outrageants contre le juge du cabinet te ñu wax nag dafa doon exercer une pression inouïe acte yu ñu posé daal taxoon na ñi nga xam ñoom ñu nekkee dem Nous itam am ay ñu euh, euh, ko yoyu de greffier euh, greffier bi di ñu sous mandat de dépôt le jeudi 23 février di ko association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste offense au chef de l'État atteinte à l'autorité de la justice outrage à magistrat acte de nature à compromettre la sécurité publique ou ayant entraîné des troubles politiques graves arrestation bu jeune responsable ou parti PASTEF part la division des investigations criminelles criminel daal di transfert à la prison de Rebus. le n'a mi ngi inscrire dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt Vous nous connaissez par la justice sénégalaise Nous voir le nag mon gagne Demba Touré moomee ah, amoon exil bu mu defoon juróom-benni weer laata muy ñëwaat fii ci euh, euh, Sénégal jot tam ay série de libération ay détenus yoo L'action action bi Nous nous ngi ko def ginnaaw incident yi nga xam ne amoon na ci audition bi euh, ñu doon defal gagne Demba Touré le 23 février passé ñenn ci greffier yi nag nekkoon ci couloir pour doyen des juges.